والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوكي جوليدي مبوكي طالبي نيغ لين دي نيو دي لين زياره دي جيتال تي زيار بي سيرن بابكر سي منصور الخليفه اك ركام سيرن مودو سي دباخ سيرن بابكر سي عبدو اك نجابوت مام شيخ سيداج مالك جيب مبوكي خم نين ني سيرن بابكر سي منصور ca burdu mu jëlu burdu ba la waxoon taalibe yi bëgg naa jubli ci jumaay liggéey liggéey jumaay Tiwaawan liggéey jumaay Tiwaawan xam ngeen ni mag ñi maam maamam Cheikh Sidi Aj Malick moo ko sampoon sëñ Babacar Sy radiyallahu taala xan mi njëkk a nekk xalifa bi ñëw am ci liggéey sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh ca xalaatam ni nanu ko yokk mu dëppoo ak jamono sëñ Mansour borom daara yi liggéey ci sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ci joxe ci ndigal sëñ Abdazi Al Amin mi nga xam ni boroom gis-gis bu sori la am ci taxawaay mu làqu sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na ko fi yàgg téwér toog ci xalifa bi mu ni bëgg nañu jublu ci liggéey jumaa yi Tiwaawan wax ko ci mu jëllu burdu jàkk euh, gàmmu gi waaye tànn ay nit yoo xam ne ñooy wuutu mboolem taalibe yi ci liggéey bi ci li nga xam ni mooy jublu ci liggéey jumaa Tiwaawan taxawal génn kuréel jamaatur Nour al sunniya jël ay taalibe boromi pas pass ñu wuutiw ci mbollem talibé ci walu liggéey Tiwaawan 14 septembre 2020 14 septembre 2020 ñu door ak yeen plateau bi nga xamni dañ ci dak ñaar muy benn saan jam ñaari picc indi ci li nga xam moy anniversaire wala sëñ Abdou Aziz Malick Dabakh waye indalé ci li nga xamni moy plateau bi njëkk a def di ci sàkku nit ñi ñu indi dugal seen alal ci jumaa ji taalibe yi xër dugal ci seen alal sëriñ bi ni noonu dóor liggéey bi 14 septembre dellu si ñu ànnaat indi indiwaat leen li nga xam ni moom la taalibe yi soxla ci li nga xam ni moom lañ bëgg a xam ci jumaa ji tey ñu tàmmoon leen leen ay plateau nag te wax day tungoom jëf bëgg a tungoom jëf moo tax ma ñëw tey fii fi nga xam ne mooy chantier bi fii ci jumaa ji ànd ci ak techniciens yi waaye gros œuvre yi jeex na damay ànd ñi nga xam ne ñoo yor loo technique yi ku ci nekk te fa nga féete nga wax ma fan nga ci toll pour ñu mën ko jël kon mbokk yi dama leen di ñaan ma ànd ak yéen ñu topp li nga xam ne mooy ngeen topp ma ci biir ma ñi nga xam ne ñoo yor loo technique ku ci ne ma laaj la fan nga toll ak fan nga jëme liggéey bi ñu mën koo xamandoo ndax nit bu dugalee alalam fenn war naa xam lan lay jur ak fan la ca toll kon mbokk yi ngeen topp ma ñu dem fa yaa xayu yaa qayuumu yallaahu rabbana ilayka tawassalna bi xayril bariyati fa yaa xayu yaa qayuum jërëjëf euh, maa ngi tudd euh, Maodo Malick Faye di architecte euh, projet bi di maître d'œuvre projet bi loolu mooy fi nekk suma liggéey li ma mun a wax ci liggéey bi mooy di sant yàlla bu baax fi ñu toll di gërëm suñu sëriñ di ko ñaanalit di ñaan yàlla mu may ñu yeggali ko ak famille Seydi Hadji Malick ak yëpp ñu fekk ko julli ci ay atiyaat li ñu mën a wax ci bâtiment dañ fi fekkoon benn bâtiment bu fi newoon pendant lu mat euh, ñeen fukki at yoo xam ne Maulana El Hadj Abdou Aziz Dabakh moo ko fi defoon bâtiment boobu ci ni mu toll woon daan nañ ko gis ci photo mu am benn soro nekk à peu près 4000 mètres carrés bi ñu yegsee aussi commencé fekk fi ay dôme ak ay daal yoo xam ne ndox bi daf ci yàggoon Euh, ñu def euh, analyse de solidité boo xam ne daf ñu wax ne dañ ko war a dindi defaraat bi ñu yegsee ba di toj ba di def sëriñ bi nañu toj du tabax moo tax ñuy toj di tabax di xalaat ba yegsi fii liñ fi yegsi ci 4000 mètres carrés yi ma la waxoon dañu ñëw yokk ci parce que euh, place su jigéen prévoir prévoiroon nañ ko mais kenn tabaxu ko motaxit biñu yexé di ngeen ko gissé ñu am euh, bâtiment principal bi ak euh, parti bo xamné dañ ko yok muy extension yu euh, go ñu def extension yu jigéni bu ci nek 1800 mètres carrés la djumaaw sidiage mali bi fi néwon dañ ko couvrir mu am dom ci kawam bu def 32 mètres momit espace de prière bu am 1200 mètres carrés la ñu bolé ci ensemble dina nek 10000 mètres carrés yo xamné comme nous l'avons fait, 18 000 personnes, nous avons fait Julie. L'année dernière, nous avons ce du mal, il y a tout à fait petit souffle. Mais surtout, nous avons fait volume. Parce que nous avons fait Kawé, nous avons fait Sigi. Mais bon, on a euh, à part le côté Sidi Azmali, il y a à peu près 7 mètres, 6 mètres 85. L'année dernière, 14 mètres, 16 mètres. Quand vous savez que le dôme la hauteur est de 34 mètres. La largeur est de 34 mètres.

benn ci côté jigéen ñi benn ci côté góor bu nekk bu nekk cinquante six mètres la cinq euh, mesure yooyu nag euh, ay ndigal yu fi Maolana El Hadj Abdou bàyyi woon ci hauteur yi moom la ñu suivre fa bâtiment ba ne woon fa lañ ko def xanaa dañ ko siggil yaatal ko li ngeen di gis ci côté bi mooy toilette yi nga xam ne moom la ñu jaglee euh, jumaa ji ndigal lañ ci am pour suul ko buñ ko suulee xalaat bi may nañu ñu ne nuñ koy ventiler nuñ koy éclairer looloo tax boo gisee dañ ko def ñaari niveau niveau bi ci suuf fa la toilette yi ne ak euh, jàppukaay yi niveau bi ci kaw dañ ko defal daal ba nga xam ne day éclairer di ventiler ci biir it ñu def ci lu ñuy wax ventilation mécanique contrôlée boo xam ne day xëcc ak di delloo di dindi xet yi di def euh, air bu bees nañ cay demee nag lu am njëriñ la Euh, dañu am ay ascenseur ci côté du ñi ñaari ascenseur ñaari ascenseur côté gourni, ñi ñaari escalier boy des ñaari escalier yoy génne ci côté bu Le li de la norme. laral lu dul norme anti-panique. ñuy wax euh, norme antipanique bu problème de duñu dem ci benn place ñi dañuy de 34 toilettes 62 yu gourni. leneen li nga xam ne moom laa ci mun yokk mooy dañu prévoir feneen ñi nga xam ne dañu am fauteuil roulant ba tax na ascenseur yeeg dugguwaay bu yomb bi dañ ko jagal ñi nga xam ne seen tànk dëgërul waaw am na ci aussi ay toilettes ñu mel noonu ñi nga xam ne dafa am jàppukaay comme bu handicapé yoo xam ne ñeent la ñu am ci góor ñi ñeent ci jigéen ñi fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan xaqiran mustaqiisan min shiddati فأنت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي man sama rôle moom mooy euh, su nee loo technique bëri na ay euh, ay domaines tel que l'électricité la plomberie la sonorisation la sécurité incendie le contrôle d'accès la vidéosurveillance et la climatisation donc euh, loo yooyu yëpp ci sama supervision lay tegu supervision nu muy demee moom amna bureau d'étude yoo xam ne moom def étude yi bu ko défé mo jox ma plan yi ñu xol waxtaan ci xol li mëna réaliser ak lu mëna contrôler ak lu mëna confirmer ak lu mëna mën dindi après ça également su fekkante ne aussi euh, entreprise bi jox nañ ko projet bi moom itam bu défé ay prestation wala bu défé ben plan d'exécution ñun la koy yónnee pour ñu valider xol lu mëna nek ak lu mënta nek en fonction euh, réalité au terrain aussi en fonction budget bi donc en gros man lolu moy sama liggéey euh, ci lolu laay liggéey ci loolu la ñuy kii boo chantier bi amna ay lo yoo xam commencé nañ électricité bi mom day and ak plomberie bi dañuy and ak euh, gros œuvre bi dans la mesure où dafa am ay réservation am war nañ ko def en termes de câbles et de de descente au pluvial évacuation aux usages, on war nañ ko prévoir ci avancement aussi dañuy gis climatisation également commencé na. Euh, poser ay euh, équipement en commençant par le réseau au glacé avec euh, quelques échantillons de gain pour permettre à l'architecte de mu les contraintes contraintes respecter pour faux plafond donc en résumé la sonorisation bi aussi avec y a corps détail ñu ngi ci phase de tirage câble nous avons avancé bu baax alhamdulilah un nañ ni maximum de câble en tout cas courant faible ñu mën ko ñu mën boucler bu des courant fort bi nga li ko gën a principaliser moom mooy partie réseau extérieur bi te ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey am nañ yàqin d'ici quelques temps incha allah dina dina dinañ xam. على همتي فاجعل إلهي علية لا صرت حرا خالصا كل وجهتي فيا رب إما كنت غيرك تجي فما بالنا يوم الجزاء وحيلتي على خاب آمالي لغيرك ربنا كمن غلقت إلا إليك طريقتي وما لي ربي ما يوري climatisation bi euh, pour mosquée bi euh, climatisation xam nga euh, surface mosquée bi yëpp li ñu war a climatiser ça fait 7300 mètres carrés du lu du lu tuuti ba pare euh, hauteur bi aussi c'est un défi parce que fi mu ne nii ñu ngi 11 mètres am parti partie boo xamante 14 mètres là. donc euh, pour que nga mën a nga ngelaw li mu ñëw ba ci kaw nit ñi té du du leen gêner c'est euh, jafe euh, da xawal xawna na jafe donc donc principe bi lañu lu euh prévoir moy climatisation eau glacée ndox mi lañuy sédal ba mu wacc température bi ñëw ba 7 degrés. ndox mom ndox mu sédd momu la envoyer envoyé ci ay tuyaux

Donc, euh, tuyaux, comme genre les tuyaux verts, nous avons des normes. Ici, nous avons 7 appareils. Tuyaux verts, c'est un moment Voilà. Donc, nous avons des normes. aller-retour. Les normes sont 7, 7 degrés. Là. Si vous avez des appareils qui sont ici, vous avez température températures de 5 degrés, 12 degrés.

comme ci à nii appareil yi ci biir ci biti la ñuy nekk du nekk si faux plafond bi puisque amul euh, galerie appareil ci biir faux plafond bi lay voilà donc euh, appareil bi nekk ci euh, ci biti noonu mooy soufflé ni ci euh, genre ge geed lañ koy moi moi moi mooy indi ngelaw Tibir. ci biir li koy ëf ci biir mi ngi nii di nga euh, mooy bouche yu rond yooyu euh, ñiy faral di tukki dinañ ko gis ci aéroport yeeg yooyu mooy pour climatiser euh, surface yu mag yi nga xam ne dafa am hauteur ci kaw voilà genre bouche yi ñooy ñooy ñooy tax ba ngelaw li dem fu ko soxla te du gêner nit ñi voilà bokkul ak di mosquée fii lu ñu faral di gis mooy ay armoire ñu teg ko ci biir mosquée bi day am day indi bruit ba paré day euf ngelaw li ci kaw nit ñi su ko defee dañuy gêné wu ñi jege euh, armoire yi dañuy yegg sedd ñi ko sore duñ ko yegg dañuy tang sax alors que fii seddaay bi dina repartir de façon uniforme foo nekk ci mosquée bi rek di nga yëg seddaay bi te du la gêné vitesse wu ngelaw bi du la gêné voilà donc euh, moi mon nekk ni côté parti euh, El Hadj euh, Malick Sy Alors, euh, alors euh, partie climatisation bi wax VRV volume de réfrigérant variable mi nga xam ne du am ndox mais gaz rek lay am gaz boobu des day ñëw ci appareil genre appareil mon moo nekk tamit fi. voilà mooy mooy appareil yi donc euh, gaz bi moy ñeu fi sédel ngelaw li directement après ñu soufflé ko ñu soufflé ko ci biir salle bi voilà parce que fi mo gëna gatt gàtt donc euh, amul même système de six soufflage que yenen voilà. mais mais bu dee bu nga xam ne. voilà dafa yaatu. voilà fi nga xamné dafa yaatu te kawé dem ba 14 mètres. donc je fexe xam ne fii dafa ba kawé, a 14 mètres dañu am ay ay euh, appareil ay centrale de traitement d'air yi nga xam ne euh, ci kaw terrasse il y a 20 centrale la centrale centrale bu euh, puissance am presque 70 kW. 70 kW, c'était climatiseur un cheval 7 kW euh, euh, donc 70 euh, kW donc ça fait ça fait presque climatiseur 70 climatiseurs pratiquement moins ben appareil donc 20 moitié pour climatiser partie B, donc fille et fille, côté homme à côté femme 39 appareils moitié au total. 39 appareils. Les partie VRV bi euh, à peu près il euh, y a une vingtaine d'appareils aussi yi nga a comme comme comme genre d'appareils, euh, il y a une vingtaine ñooy climatisé côté bi voilà léegi côté bureau ci minaret bi aussi am na ay climatiseur VRV comme fii yu climatisé bureau yi léegi leneen lu aussi amène qui ci mosquée bi parce que c'est une mosquée intelligente euh, euh, jumtukaayu xaral yi fi nekk yëpp dina permettre nit ñi lépp lu euh, pan ci mosquée bi ñu mën ko xam ci ordinateur la ñuy taalee climatiseurs yi ci lañ koy fayee ci lañ koy régler et parti bu panne rek dinañ xam exactement lan moo pan ci système bi beneen système aussi am un buntu yi yëpp dañu am li ñuy wax rideau d'air rideau d'air bi moy tax euh, buñ ko talé mën nañ tijji buntu yi té bi ci du génn ci voilà kon vous parti yi tamit comme voilà même système même système comme partie góor voilà. bu dee ci minaret. bi. voilà fi ci fi vous imam bi di aussi day am climatisation VRV la euh, volume de réfrigération variable unité yi nek ci bir comme genre yi day nekk si faux plafond bi mu am gris buy soufflé euh mu am appareil yi nek ci ci ci euh, ci biti ñom ñoy évacuer chaleur bi. jërëjëf voilà jërëjëf voilà très bien waaw kay jërëjëf. وأثنى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير ثنيتي مع الآل والأصحاب exactement si jumaa nous ñu ngi fi def sécurité alarme incendie sécurité de contrôle d'accès et vidéo surveillance vidéo surveillance moom caméra yi képp ku wa dugg wala ku génn si jumaa ji ñu xam kañ ak kañ nga fi contrôle d'accès bi mooy bépp bunt si jumaa ji dañuy am système de lecteur de badge wala salle de supervision bii nekk ci biir ñoo lay ubbil tey ubbi bi mun nañ ne buntu tel heure tel ba heure tel lay ubbeeku heure tel mu tëju c'est-à-dire que euh, la sécurité est intelligente L'alarme et alarme incendie bi euh, système de détection de fumée ou de température système de détection est un détecteur à point ou un détecteur linéaire Il xamante des des faisceaux. comme faisceaux euh, de largeur 15 mètres longueur minimum 100 mètres C'est système lañ ciy résumé non seulement prévoir une détection incendie détection électronique

naturel avec ventilation mécanique pour assister fi actuellement jumaa ji yëpp boo doon xayma gros œuvre bi à 90%. c'est-à-dire tey jii il y a une partie dañ libérer pour y a tax seconde œuvre bi commencer seconde œuvre bi sax technique l'électricité, électricité plomberie la sonorisation la climatisation le contrôle d'accès vidéo surveillance. nous commençons à passer à ay fil et les

sonorisation bi jot nañ bon de commande bi commandé nañ matériel bi sonorisation bi dem ci djuma ji parce que sonorisation djuma ji lutax tax mu mais mooy commande comme de rëy dix mille mètres carrés il faut que nit ñi mu baña tankal sonorisation tamit baña tankal nit ñi donc dañ ci def ay étude ba nga xamé né étude yoyu moo tax ñu jënd matériel bi nga xamné mom lañ ciy def ñu jox ko benn compagnie V12 Events mu koy def donc liggéeyu djuma ji comme nous mu tëddee entreprise bi nga xamante mom moom yor gros œuvre mom moy CDE

donc am bien bi nga xamante ni liggéey bi am c'est des directions direction générale boole c'est accompagne bon, gi ba a taxaw liggéey lu toll donc liggéey fi mu toll bi bien naan gros œuvre bi c'est terminé à presque 90 donc li gënoon jafe ci liggéey bi liggéey la boo xamante ni du liggéey bu comme bu simple comme bâtiment wala immeuble mais liggéey jumaa dafa xaw a complexe forme yi daf forme yi jafe la architecte bi day xalaat bu xalaatee jox bureau d'étude bureau de bi calculer mu jox ñun entreprise balaa ñuy exécuter ñun tamit foog ñu xool méthodologie d'exécution yëpp faut ñu xool ko te délai délai liggéey bi délai yo xamante délai serré serré la donc loolu yëpp dañ ci dom tenir dañ si tenir compte mais jumaa ji soo xoolee fulla bi ko entreprise bi jox nga xol biñu démarré daw bi fi ñëwé 14 septembre ak ren 14 septembre 2022 ci diggante bi li fi def ci liggéey donc daw nañ fi lu bëree baree bare liggéey nañ fi guddi liggéey nañ fi bëccëg liggéey nañ fi suba liggéey nañ fi ngoon. plomberie bi actuellement euh, ñu ngi def euh, euh, carottage yi pour descente eaux pluviales yi fële tam broc toilette yi tamit semaine prochaine dinañ commencer li nga xamante ne moom mooy pose conduite pour évacuation yi. électricité bi gis nga frottage dal yëpp def nañ ko tey jii pose semé des câbles pour permettre l'eau technique yëpp fu ñuy jaar mom lañu nek di def actuellement pour par rapport à l'électricité. donc gros œuvre bi li gënon jafé moy coulage coupole yi gis nga ko coupole bi nga xamante ne moom moo mag moy coupole bi nga xamante diamètre 34 mètres la bu démarré à plus de 16 mètres nga xamni tay le borom évaluer coffrage bi tu a plus de 1800 mètres carrés de coffrage euh, béton bi y a plus de 400 mètres cubes de béton donc nek won liggéey bu yomb il fallait ñu trouver ay mécanismes ay ay méthodologies yo préfabriquer li nga xamante ni moom coffrage bi préfabriquer li nga xamante ni moom ferraillage bi pour mën a accélérer travaux yi pour mën a egg tey jii fii donc euh, bi ñuy démarrer travaux yi on avait huit chefs de chantier ak plus de 500, 550 personnes ñoo fi nekkoon bi ñu demee ba liggéey bi commencé wàññeeku bu ñu paree li nga xamante ni les dalles plates Les six chefs de chantier moo fi nekk kii mooy chef de chantier principal Ibrahim Sakho donc actuellement on est à 390, presque 400 personnes nous pour terminer les On travaille 24 heures sur 24, mais actuellement, on ligue à minuit. Donc deux équipes, une équipe qui est de 8 h à 16 heures, deuxième équipe qui est en renfort à partir de 15 h à 0 h Donc on a quart on a réparti les ligues. Les dans sa globalité aussi, on a fait des chantiers. Extension homme, on a fait des chantiers. Extension femme, on a fait des chantiers grande salle de prière ñu def ko chantier boppam bloc toilette ñu def ko chantier boppam donc chantier bu nekk jël beneen chef de chantier boo xamante ne moom géré minare. chantier bu nekk bu ñu ibbi am chef de chantier bi nga xamante ne moom fa conducteur travaux bi fi nekk notamment man ñooy coordonné loolu yëpp pour liggéey bi Mon a a dem si kanam. man def métier bi plus de 44 ans ci métier mais volume mu jumaa bu toll nii musuma daje ak moom. maa ngi doog a daje ak moom ba tax na système bu ñu doon liggéey lu ci bëri dañ ko changé dal plate yi bari na ci lu ñu def préfa pour mën a dem ci délai bi ñu waxante woon ak commission bi coupole yi dañoo changé système de coffrage bi ñu doon def ak système de ferrage bi ñu doon def parce que coupole bu mujj bi muy 34 mètres bi ñu koy defar panneau yëpp dañ ko préfabriqué ci suuf matoon na 123 panneau lépp dañ ko xalaat ci suuf préfabriqué ko ci suuf monté ko sur place ba mu mel ni mu mel même chose noonu lañu def ferraille bi dañoo defaroon aire de préfa ci suuf préfabriqué ferraille bi di ko yëkkati par panneau.

donc euh, euh, beneen saytu bi aussi mi ngi mooy moo nekk sur le terrain maanaam li ñu def si plan yi li nga xam ne bureau de contrôle bureau de bi def liggéey na ko ba pare bureau de contrôle bi ñëw validé ko est-ce que entreprise bi mi ngi koy def ci ni ci niñ ko validé donc ñun en gros suñu liggéey loolu la donc euh, ñu ngi déparé ci ñu ngi dep ñu ngi déparé ci fondement yi ba ci fondation yi ba ci kaw donc lépp loo xam ne luy béton wala luy faire bu ñu bu ñu teg ci ci ci kii bi ci ci liggéey bi lu fi def rek avant ñu koy couler donc ñun foog ñu ñëw xool ko réceptionné ko xool ba xam méngoog nag euh, plan béton plan plan béton yi ñu validé donc euh, ñu ñun tamit dañuy saytu aussi euh, plan yi nga xam ne aussi dañ ko yónnee des fois mu am ay problème des fois ñun tamit loolu suñu liggéey la bokk donc dañ koy xool il euh, saytu ko erreur exécution donc euh, en gros donc euh, on fait aussi des rapports rapports journaliers et des rapports hebdomadaires Yo permettre d'ouvrage équipe technique bi nga suivi la فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية والشفيع فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوب من أنا فيلوزوفي وجماجي كي تبخ دي موي لب لون في يدف كورد دو ميتي بوم من تدون كوكو في يدف داغا اندك غوني جانغال لين ناك لا نكاي ديفه باسكو

ëllëg si ñu mën see sàmm seen diine ak seen ngor mais itam ci ñooñu la ñu bëgg a ñi nga xam ne ëllëg si biir ñoom la ñuy sant ñu ñu entretien jumaa maanaam ki nga xam ne day installer sonorisation dañ koy booleeg ay gone yoo xam ne ñooñ lay àndal kooku dina xam fu fiil ba jaar lu bu bleu bi lu muy tekki bu jaune ba lu muy tekki et cetera et cetera ba bu ñu demee ba war a soxla koo xamee ne kii kat moo war a des ci jumaa ji parce que dañuy am équipe boo xam ne mooy gérer jumaa ji ñu mën a jël ci ñooñu benn ñaar ñett

loolu pour réseau d'assainissement assainissement bi la woon parce que dañu assainissement bi lañ doon mottali pour que quartier bi ñu nekk quartier Sey suñu maam Seydi Hadji Malick ñu mën ko boole ci réseau d' assainissement bi. maintenant loolu bi ñu ci waxee ñi ñu ci war a waxal dañu jàpp ne assainissement bi naam il faut que mu am mais boo paree assainissement il faut que ñu renforcer réseau ndox mi pas bàyyi ba gàmm rek ñu daal di def nii après xaaraat gàmm déedéet wax ñu a waxal dañu wara calculer réseau bi gas ay tuyaux ko pour que li nga xamné def forage ak ci château d'eau nit ñi mën ko fa tok seen kër buñu bu si suñu ci le projet de territoire de Tivaouane parce que itam euh, dañu jàpp ne rek Tivaouane yamul ci élément central c'est un élément central mais que est commune de plein exercice depuis 1904 mais commune de plein exercice a commune de xam e, pour que ñu am le devenir de Tivaouane au moins ñoom ñu xalaat ko ci ñaar ak fi ak fi ak fi lañu wara jaar yoon yi lañu wara jaar fi lañu wara def tali fi lañu wara def hôpital fi lañu wara def nangam ak nangam. فيا ربنا اسلم إليك خواطري بجاه نبي للبرية رحمتي فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير برية والشفيع فينا في اللقاء وكلنا J'ai commencé avec faire des parasols pour les mosquées en 1986 et 7. C'était le premier projet de Medina, dans les, parasols dans les cours, dans les haswa. Et c'était un, projet qui a changé toute la euh, scène des parasols. Après dix ans, on a, on a commencé avec les parasols de Tiwawan. Et je suis très fier et très, euh, euh, très content que je sera ici avec les, les, les prairies de Tijania. parasol yi esplanade bi xam nga maa la wax 10 000 m carrés la ñu euh, bâtiment euh, surface su terrain bi 22 000 mètres carrés donc esplanade bi di douze mille mètres carrés esplanade bi yëpp lañu prévoir ay parasol Yenge, ngeen comme ya ngeen gis ci yu ubbe ubbeeku ci suba di tëju ci ngoon nuñ ko buggee pour euh, au total fanweeri parasol day day day couvrir esplanade bi yëpp fiñu tollu du dugg nañ ci lo xamné war nañu commencer fuk yeggali yeneen euh, ñaar fukk yi ci des mais yëpp ci biir esplanade bi lay nekk li ngeen di gis nii boo ko seetloo mooy soroor bi fi fekkoon ñu toj ko defaraat ko li ngeen di gis nii mooy li nga xam ne mooy euh, mooy marqué xibla bi parce que li ngeen gis fële mooy mihrab bi fi nga xam ne imam bi fa lay ne moom it fa mu ne la nekk ci suuf la nekk sa càmmoñ dafa am place am moom bureau bibliothèque li gens qui ont bi ñu jagteel ko sëriñ bi ne la dañ ko def centre médical bo xam ku fi am tolof-tolof balaa dara ñu lay ont fenn ñu xool la prévoir un si sax lu mel défibrillateur ba ku am lu AVC ambulance aussi ay médecins ay infirmiers yu en permanence saa yu li nekk ci kawam ay euh, bibliothèque la yoo xam ne euh, mën nañ ko utiliser nit ñi di fi ñëw di gëstu xam-xam la ca kaw nag mooy les locaux techniques moo xam saalu vidéo saalu sonorisation saalu télévision ak yépp moo nekk ci kaw. mbokki julit yi mbokki taalibe yi gis ngeen ñi nga xam ñooy technique yi nga xam ne ñooy yor lépp loo xam dafa aju ci jumaa gi jamaatu al Sunniya tàmmaloon leen. plateau télévision yoo xam ni dañuy toog ak di wax indi architecte yi ñu ni wax day tungoom jëf moo tax ñu indi leen wax leen fan lan toll ci jumaa ji njaw des naw xamin ku gis li fi ne gis li techniciens yi wax ak li ci war a aju yëpp war na noo jàpp ni taalibe bu ne jullit bu ne war ngaa mën dugal sa loxo ci jumaa ji defar sa beneen tolluwaay jëme ci jumaa ji nga xam ni sëñ Babacar Sy Mansour moo waxaat ñu yëkkati ko sëñ Babacar Sy Mansour nag xeebul dërëm xeebul milliard ndax xam na payug yàlla du jullit jël alalam def ci ci juma wala ci jàkk kon mbokk yi gis ngeen sànq ñi nga xam ñoo yor parasol yi signé ak jamaatu nur al Sunniya pour ñëw taxawal parasol yi fii ci jumaa ji gis ngeen yor lépp loo xam ni climatisation la gis ngeen ñëpp ñu yor yi nga xam mooy robinet yi indi ndox mi ak li nga xam ni mooy toilettes souterraines yi nga xam dañ koo def waxoon nanu ko gaa yaa ngi koy jëf kon mbokk yi wax day tungoom jëf moo tax jamaatu Nuur al Sunniya indil leen lii nga xam ni tey jii mooy taxawaay tolluwaayu liggéeyu jumaa Tiwaawan sëñ Babacar Sy Mansour yàlla na fi yàgg te wér ànd koog sëñ Maodo Sy Dabakh mi nga xam ni tegtale na nan nan la nit di fonke waajuram sëñ Babacar Sy Abdou ak njaboot yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér. yalla ñu dund ba and ak khalifa bi ci ubbite jumaa ji ay ati ati at ba sos yenen ñi ngi ñaan wa jamaatu nur al sunne yalla degeural leen te sàmm leen waye mbokk yi ku amati sa deureum ku amati sa témèr bu kenn xeeb dara sa 1000 francs ba ci 1 milliard dugal ko ci jumaa ji kon mbokk yi lii moo doon tax ñu doon wote tay indil leen benen système bo xam dañ leen di won fon la liggéeyu jumaa ji toll ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñax ñëpp ku ne dugalaat sa loxo sa poste indiwaat ndax jumaa ji teel ñu ànd koog sëriñ bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wa daawuda yaquub suleymaana yuusufin wa isaaqa ismaaciila ilyaasa junnati wa muusaa wa haaruun wa ayuuba wa وللكبر يحيى ثم عيسى الوسيلة كذا زكرياء شعيب وصالح تقينا لدى الدارين من كل وحدة ومن آل بيت المصطفى جم شملنا لأصحابي كشف الشلال مهيبتي بأقمال بدر يا إلهي وسيدي وبالمال الأعلى شمل كل أمتي إلهي يا مولاي بالأرض والسماء وما حوت أبلتشنا كل علتي لك الخلق يا مولاي والأمر كله ولا تكلن أمري لغيرك زغتي مشارب للحضرتين لتسخنا أذن بغياب القلب ما كل قسوتي مدى الدهر والأيام والذنب حاصل وصاع غراب البيت معلم رحلتي مدى الدهر والأيام والجسم عابد سوى الله والرحمن خالق جثتي مدى الدهر والأيام والقلب شاكر سواه من ورداء قلب معيشتي مدى الدهر والأيام والذنب حاصل على أنني مملوك نفسي وشهوتي على عمر ولا مستطاع رجوع غرب ما إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي إلهي توبة قبل المنون